dëgg du mel noonu moom yuqimuuna salaata day saxal julli ba baa muy génn àddina moo tax yonente wax na ci xadis ne ku dul julli ab yéefar nga kon nee na way gëm yi dëgg-dëgg ñoom julli dañ koy téye seen loxo te duñ ko bàyyi dañ koy téye ci seen xol duñ ko bàyyi dañ koy téye ci seeni cër te duñ ko bàyyi ba keroog ñuy sàngoo suuf loolu mooy yuqimuuna as salaata kon yàlla mi ngi ñuy wan melokaanu aji gëm la ñuy commencé di wan nii yamuñu ci de wa mimma razaqnaahum yunfiquun lenn ci li leen yàlla wërsëgal ña ngi koy dépensé di ko joxe ab jullit day joxe ab jullit du nay ab nay dafa jege safara ab tabe dafa jege aljanna bare na ku nay nay gu yóbbuwu ko lu dul dugal ko safara bare na ku tabe tabe gu yóbbuwu ko lu dul aljanna la ko dugal yàlla waxul joxe li nga yor yëpp wa mimma la wax gis nga wa mimma xola mooy lenn ci li ngeen am wa mimma lenn ci li nga xam ne razaqnahum wërsegal nañu len ko waaye lol ngay ne man lima len jox domp len ci joxal ma diw na xam nga ne yalla mo bax parce que mënoon na joxal mbindeef yep bopam waye nak yow neex nga ko mu jël 1 milliard tek sa loxo ne la yow la yobante ñu ñak ñi yow nga jël yep dexeñ ci sa pos di wër rek di taxawalu defena yow sa yittey bop ak sa kaweñaay ak sa mag ak sa juddu bu reuy ak sa wayjur yu baax moo tax nga yor lu dul jeex lii da ngay nax sa bopp dañ laa séddaleeloo wa naa razaqnaahum lenn ci li ñu leen wërsëgal na dañ koy dépensé dañ koy joxe ci topp yàlla ña ngay joxe ca jàkka ya ña ngay joxe ca daara ya ña ngay joxe ci miskin yu ñàkk ya ñu ngay dundal seeni njaboot ñu ngay xool jirim yi di dimbali wa mimma razaqnaahum yunfiquun bokk na ci melokaanu jullit yi ba tey walladina mooy gaa ñi nga xam ne yuminuuna di eh, ñoom dañoo gëm bi ma unzila ilayka li ñu wàcce ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy alquran alquran ji nu wàcce ci yonent bi ñoom gëm nañu ko xamuloo ne am na ñu wax ne gëm nañ yàlla mais mais ñoom alquran lañ gëmul mais ñoom xam nañ ne yàlla am na yàlla dañ ko war a jaamu mais nag alquran ji yonent bi di wax moom no ñoom leerul seen bopp gëmuñu ko. en tout cas baax na en tout cas melokaanu jullit bokk na ci liñ koy xamee foog ñu nangu ne alquran jii ma wàcce ci yow ñoom gëm nañ ne ci man la jóge mooy walladina yuminuuna bi ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika ak li ñu wàcce woon ci yonent yi la jiitu woon am na ay yonent yu la jiitu bare nañu kenn mënu leen a nu jeex yàlla rek xam nu lim ba toll cent vingt quatre mille yi ñuy wax loolu mooy lim bi nit ñi xam waaye yàlla am na sax lu ëpp loolu waaw wa minhum man lam naxsus suñu borom nee na am na ci samay yenent ñoo xam ne waxuma leen ñan lañu wa bil axirati hum yuuxinuun dañoo am certitude ci alaxira mooy ñoom nekkuñ ci sikk saaka naan ah alaxira mbaa dina am yi am na ba fii ñu toog am na gëmul ne dekki yowmal xiyaam ñu àtte dina am am nañu ko gëmul dee nag gëm nañ ko parce que gis nañ nit ñi dee ba tàyyi waaye pour ñu dekkiwaat am na ñoo xam ne ba léegi gëmuñu ko am na ay scientifique yoo xam ne nii ak ay philosophe yoo xam ne ñoom yegg nañ ci bay xalaat sax naan nit ñi demoon ñooy dellu waat gis nga pour bëgg rek justifier erreur bi ñu def parce que xam nañ ne sa dëgg-dëgg nag dekkiwaat bu amul mais su boobaa justice amul fii li fi nekk ci tooñante ak rayante ak dammante lool bu fekkee après day jeex nii rek amul fu muy mujj mais kon kon kon wax dëgg yàlla nag ñun bind gin ñu bind ak sunu teewaay fii day mel ni bëriwul solo noonu justice bi war a am ëllëg looloo waral bésu àllaaxira mooy àq yi dina génn tooñaanga yi dina génn ñi ne woon ci dëgg dina leer ñi ne woon ci caaxaan dina leer kon nag wabil axirati ci àllaaxira hum ñoom yuuxi noona dañu ko wóolu dañoo gëm ne dafay am nekkatuñu di sikk sàkk nañ ah anda yaakaar naa àllaaxira dina am déedéet ñoom dañ koo gëm ba lépp lu ñuy def dañ ciy sóoraale bis boobu ulaayika ñooñu nag ñii ma wax di leen melal ñu ne ah, buur bi nee na ala huddan ñii nag ñoom ñoo ne dégg ca ngëm ga nag ah, su doon ne trait la bu ñu trait nii ne dañu bëgg yow nga jaar ci kaw liiñ bi ñii ñoo jaar ci kaw tracé bi mooy ulaika ala hudan ñii ñoo na dégg ci kaw njub min rabbihim ga tukkee ca seen boroom wa ulaika ñii wala nga ne wa ulaika ñooñu hum ñoom al muflixuuna ñoom ñooy way texe yi maanaam ñii ñoo jël ndam la ñii ñooy waa ajana ñii ñooy soppe yonent bi ñii la yàlla bëgg kon yàlla définir na ñan ñooy jullit wax na seen ngëm wax na du nekk ngëmu falaa falaa wax na na ngëm la goo xam ne dafay diig ca xol ba wax na na moom yu fàddu yi leen yàlla informé ñoom yooyu dañ ko téye mu nekk lu wóor ci ñoom sikk sàkkaatuñ ci wax na ni itam dañuy sax ci jaamu yàlla wax ne ni itam ñoom dañuy joxe seen alal fa yàlla bëgg na du ñu fawe alal wax dëgg yàlla lu ñu mën a mën a joxe du ñu fawe alal wax ne itam ne ñoom dañu gëm alquran di ko jëfe parce que gëm alquran mooy nga di ko jàng di ko jëfe wax na nu itam dañoo gëmoon téere yi njëkk ak yenent yi jiitu woon donte gisul ñu leen gëm nañu ko wax na itam ne alaxira dañu ko gëm te wóolu ko xam nañ ne day ñëw dal ne nag ñii ma lim ak melokaan yi nu am ñoom ñoo ne ci njub ñeneen ñi newul ci lii nekkunu ci njub nee ñii tegu ci njub gi tamit ma fàttali la la ñoom ñooy way texe yi ñoom ñoo gañe ñoom ñoo mel na yàlla bëgg la yàlla tracé woon itam ñoom ñoo ca jaar beneen misaal bi ciy topp nag dafa war a misaal ñi nga xam ne gëmuñu maanaam contraire ñii nga xam ne dañoo taxaw fippu weddi li ñuy wax beneen misaal bi ciy toppaat mooy ki ne ci diggante bi mooy ki nga xam ne bokkul ci ñee bokkul ci ñi kon ñetti xeetu doomu aadama yi ñoo fi nekk mooy ki nga xam ne dafa gëm ak ki ki nga xam ne gëmul taxaw ne man d'accorduma ak ki nga xam ne waxul d'accordul waxul d'accord naa mais dafay werante ci ñaar yépp bu teyee mi ngi fii su ëllëgee mi ngi fee moom daal fu ko arrangé rek mu taxawee fa ñetti xeetu nit yi rek moo am muy jullit ak yëfër ak naafeq léegi nag ñu ñëw ci misalu ñi nga xamne ñoy contraire ñi ñu doon wax léegi muy ñi ñu tuddé ay yefa muy innal ladina kafaru innal ladina kafaru sawaun alayhim a undartahum am lam tunzirhum la yu'minun gis nga ñoom seen problème bari wu yàlla daf ko teel a parce que ci ben ay rek seen problème rek yow mu jeex parce que ñoom seen mbir dafa leer moy ñoom dañ na d'accord point bi guddi bi nag mooy wa minan naasi kooku dinañ ci ñëw léegi moom daanaka bu la neexoon nga ne li des ci saar wi yëpp ñoom ñooy problème mu ne inna alladina gaa ñi nga xam ne nag ñoom kafaru dañoo weddi yàlla dañoo lànk ne ñoom d'accorduñu wax ne yàlla am na d'accorduñu jaamu yàlla boobu ñu ëpp ci ñoom sax d'accord nañ ne yàlla am na mais jaamu gi lañ d'accord loolu tamit foog ñu xamee ko dafa am lu ñu tuddee tawxidul uluhiya am na ñu tuddee tawxidul rububiya na ñu tuddee tawxidul asma wa sifaat maanaam tawxid dafa am ay étape ay martaba la martaba yu kawe premier martaba mooy tawxidul uluhiya loolu yëfër yëpp gëm nañ ko mooy nga wéetal nga tawxidul rububiya mooy nga wéetal yàlla ci li mu sakk yàlla bind asamaan mu bind suuf moo bind nit ñi moo bind ngelaw moo bind asamaan lii moom bu dee dëgg rek la ñuy waxante kenn xëccoowu ko moom mësuñu dégg ko wax ne maa bind nit ñi maa bind asamaan ak suuf wala diw a bind nit ñi wala diw bind kooku unanimité ñëpp d'accord nañ ci ne moom asamaan si moom kenn wooteegul ne maa bind ak suuf ak nit ñi loolu mooy tawxiidul ulu tawxiidu rububiyya mooy wéetal yàlla ci li mu moom te sàkk ko muy mbindeefam yëpp kooku benn martaba la yi yëfër yi nekkoon màkk gëmoon nañ wala in saaltahum man xalaqa samawati wal ardi la yaquluna allah do alquran ko yàlla ne yonent bi moom temps boo leen laajee ne leen ku bind asamaan ak suuf ñu ne la yàlla kon ñoom amuñ woon problème mu tawxidu rububiyya moo tax ñun jullit yi nañu def attention bu baax léeg-léeg nga dégg ko bàkku na man kenn gënumaa doon jullit yàlla rek laa gëm xam naa ne yàllaa ma sàkk or que mi ngi ci taw tawxid bi gën a suufee bi nga xam ne yëfër yi gëm nañ ko ban mooy deuxième bi mooy tawxidu uluhiyya mooy wéetal yàlla ci jaamu ko booboo jafe na boobu la gars yi nanguwul woon mooy foog ñuy sujootal yàlla foog ñuy wooral yàlla foog ñuy génne suñu alal di ko def ci yàlla boobu lañ ne woon nag lii moom leerul waaw parce que ñoom lu leen yàqal seen programme di ko defal keneen loolu lañ nanguwul parce que lépp lu ñu bëgg a def seen bopp lañ koy defal te nangu na yàlla bind loolu daanaka génnewul kenn yow li yàlla bind yaa koy jëriñoo kon boo weddee ne yàlla bind ko tamit amul benn chance mais bi jafe mooy ñu lay julliloo di la woorloo di la ajiloo màkka di la joxeloo azaka foofu la problème bi nekk nag bii mooy tawxiidul uluhiya mooy wéetal yàlla jaamu ko bii nag moo amoon problème bii nag la gars yi nanguwul woon ne daal jaamu gi moom moom mënul nekk waaw mënul nekk mu jur coow lu bëri mbooleem yonent yi wàcc yëpp yëpp ba ñin ci rey amuñu woon problème mu yàlla moo bind wala bindul problème bi ñu amoon mooy kaay leen jaamu yàlla loolu lañ nanguwul woon kaay leen ñu jaamu yàlla ñu ne ko mukk doxal sa dox rek ñu dox suñu dox mais kon nag tawxidu uluhiya lu mat a bàyyi xel la mooy ñu wéetal yàlla ci di ko jaamu bañ ko bokkaale ak dara boo bay problème wa sifaat nag mooy lu wéetal yàlla ci turam yi ak ci melokaanam yi mooy tawxidul asma wa sifaat moo tax yàlla kenn du ko tuddee doom diw am sa doom teuf no tuddu mo ne tuddee naa ko allah wala tuddee naa ko rahman latif karim loolu haram, kenn duko ko tudd nga wax abdu karim man nga wax abdu latif man nga wax abdullah abdullah moy jaamu yalla mi ngi ni mais yalla ngi ni rahman ngi ni karim ngi ni latif ngi ni lol lol kenn ko wax lol dafa haram ci julit bokku na ci moy suñu borom turam yu set yu sell yi dañu war a nangu ne amul kenn kenn ku mën a am tur wu ni mel ma joxe benn misaal Karim yàlla mooy Karim ñu ne diw mooy Karim xam Karim mooy kan Karim mooy koo xam ne moom mbaa xam ak yërmandeem ak dooleem ak kàttanam dafa yegg ci yow boo ko tooñee tudd Babacar buy jéggal Babacar njéggal li day wàcc ba laal Babacar yëpp noonu kenn baaxewu baax yeggul foofu ku tudd Babacar rek njëgulu Babacar dana wàcc ba laal la looloo tax ñuy taamu boo amee doom tuddee ko ku baax waaw fala yuxaasabu jalilu man ismuhu muhammadun aw ahmadu nee yàlla am na kersa di xisaab koo xam ne dañ koy taxawal di ko réglé naan ko fala yu fala yuxaasabu jalilu samadu ala balek samadu mooy yàlla noo tudd mu ne Muhammad ñu taxawal ko ci digg pénc mu di ko réglé di ko gàcceel mu ne ruus na ko ndax yonent bi ahmad ak Muhammad kooku karim rek moo ko mën loolu mindeef mënu ko mindeef mënu ko su ko def defee loolu moo tax yàlla dafa wéet ci turam yi loolu foog ñu nangul ko ne yàlla rek moo moo nekk karim ku dul moom bu ne la karim ngay doo karim xeyru karim nga bu ne la latif nga doo latif bu ne la xafuur nga mooy ki nga xam ne mooy kat bi nga xam ne su la jéggalee day mel ni yow parce que day mel ni yow dañu la defal li ñuy tuddee eh, antivirus lañ ko mën tuddee xëy na bu doon ci machine mooy wala nga def ko ñekku loo xam ne buñ la ko xasee defal yow feebar bala daloon dootu la dalaat nga am antivirus daal ci misaal virus dootu la dugg xafuur kooku yàlla moo koy def mooy bu la jéggalee yenn njéggali dootoo duggati ci yenn safaan yi mukk ci àddina kon yàlla dafa wéet ci turam yooyu kenn mënul loolu ku moom loolu mooy ngi wéetal ko turam ak meloom yi tamit meloom yi bokk na ci mooy yërmande tabe yiw njëgal yooyu yëpp ci ay melokaanu suñu borom la bokk melokaanam yooyu nag wéet na ca kenn fekku ko ci képp ku ca am rek moom moo la tànk may la dompal la tuuti ci yërmande kon tawhid baangi nonu moy ñett yoyu nga xam ne yéefar yi ñoom ba léegi mënaguñ koo boole sawaun alayhim mu ne ñi weddi li nak sawaun alayhim sawaun yemoona la ne xëy nga ne sawaun mo xam alayhim ci ñom a andartahum ndax war nga leen am lam tumsiruhum wala waaroo leen yu'minuna du nu gëm mu ne am na ko xamne bul perdre sa temps nga war ko ak nga bañ ko war du gëm yàlla nga war ko nga bañ ko war du nangul yàlla sawaun alayhim mo yem ci mom a anzatum am lam tunzirun war nga len wala waaroo len la yu'minu wa lu tax mu ne xatama wala du mo ci toog xatama allahu yàlla dafa kasti fa tëj ala qulubihim ci sen xol manam daf ko xomb ko li nga ci dege moy ndekente bo dof dofloo ba def yenn safani da ngay vériyewu waaw da ngay vériyewu

kooku moo ko explosé mais yow yaa ko bës te waxoon na la bu ko laal kon dëgg la boo ko laalee mu explosé moom la parce que moo liggéey mbir mi mais yow la parce que yow yaa bës mbir mi yow yaa ko sabab lu bokk kon am na bàkkaar yoo xam ni yow boo ko defee yow sa xol bi day tëju automatiquement day tëju dëgg la yàllaa ko tëj waaye automatique ba yàlla la mais yow yaa def lu tax mu tëju parce que da nga weddi yàlla xatamallahu ala samiin ala xulubihim seen xol yi yàlla tëj na ko wala samim ak seeni i nopp pas nopp seen i dégg mu juum yàlla waxul tëj naa nopp yi de ab yéefar kenn du tëj noppam yàlla kaste la wax dégg yàlla parce que nopp boo ca dem nii nga koy fekkee mu am bën-bën comme ñëpp kon bu yàlla ne woon damaa tëj seen i nopp soo gisee nopp mu am bën-bën da nga naan mais ñii fu ñu tëjee seen nopp moo tax yàlla dégg yàlla wax ne tëj naa ko moo tax boo doon wax yàlla ba déewoon duñ ko dégg wa ala absaarihim ak seeni gis yàlla moo mën a wax waxul tëj naa seen bët de seen gis gis du lu ñuy laal bët yi moom moom ñii waaye lay gis na leer la loolu coupé na lan moo ko coupé li mu def richaawatun benn muuraay xatama allahu ala xulubihim wa ala samihim wa ala absaarihim ak ci seen i bët richaawatun benn muuraay mooy toile def nañ ci benn toile boo xam tax benn wax mënatul pénétrer seen bi yan ci yàlla musal mu ne ñooñu nag wala hum ñeel na leen adabun bugal adim bu mag xam nga bi mu définir jullit yi ba pare wax na ne ñoom ñoo texee ñooy waa ajana ñoo ne ci njub mu misaal yi yéefar yi ba pare daal di nag wala hum adabun adim ñii nag nañu xam wala hum ñeel na leen adabun bugal

tax nit nit daal moo a ragal te moo tax premier ay yi tudd ñu nit benn yoon alladina la tudd mooy gaa yi gëm kafaru gaa ñu wetti fii mu ne wa min annaas parce que foo leen di classé am foo leen di bokkuñ ci ñu gëm bokkuñ ci ñu weddi mu ne wa min annaas am na ci nit ñi ñoo xam ne mais du ñëpp nag parce que yéeféer yooyu mu doon wax ci naas yi lañu bokk jullit yi mu doon wax ci naas yi lañu bokk motax mune mu ne wamina naasi am ab lim ci nit ñi man ño xamne yaqulu amanna billahi dañu na no man dama gëm yàlla wa bil yawmil akhir no dama gëm al akhirah wa ma hum bi muminin yàlla de gëmunu kokku nak lu mu wax dëgg